contentement di jàkkul waat ak yéen yaakaar naa ne boo leen gisee fi ma nekk nii sama ginnaaw nga xam ne ñu ngi école de lutte Mor Fadam bu ñu waxee école de lutte la ñu nekk ñu baree bari fi la ñu jaar bari na si ñu baree baree bari ci làmb tey fi la ñu jaar ba dégg daal di wala ba doon tey li ñu doon rawatina tey ki nga xam ne moom la ñu toogal bu ñu ko waxee muy Pape Mbaye Pape Aziz Mbaye ñu dëkk Guédiawaye xam nañ ko ci Bapat mu nekk champion boo xam te def na lu ne ci làmb mais dañoo gis bi mu nekkee ci làmb nag mu toog benn diir boo xam te ni kenn gisatu ko demoon France waajtaay la woon préparation la woon bi mu ñëwee nag ñu bari dañ doon wax naan Pape baay du rëy ci làmb taay bi moo ñu jaaxal mais bu ñu ñëwee dañu gis mu yor benn volume benn état boo xam te ni xamuñu doole la xamuñu dara mais tey daal gis nañ ko mu takk gemb war a contact loolu lépp nañ ko laaj Pape maa ngi lay nuyu di la ziar. jàmbaar ji maa lay fay maa lay bëgg di la ziar bu baax di bëgg waa àdduna di bëgg waa Sénégal ñëpp di sant yàlla jëlee bu ma dëkk fi ma juddoo fu ma bu baax di sant waa waa Italie waa Tarragona waa Xaayaan capital waa Wolba capital sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm sama waa ji. Pape Mbaye lan moo ko andiwaat Sénégal dafa ñëw pour bëre si wala dafa ñëw pour lan lan moo ko andiwaat Sénégal. waaw man fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee waaw xëy tey kon ñu rek góor dafa war a dox tey loolu moo tax dañu war a dox rek xam nga di préparé di am combat yaaga dem di préparé di ñëwaat fii ñu am combat lañ dëkk fii ta foofu yi gars yi di foofu ko fuuf fuuf fuuf buñ toogee di seetaan na gars yi di si lekk xaalis te ñëw wala ñu yaafuus hmm, te duñu yaafuus gaynde hmm. Pape Mbaye bi muy woon nii lan la lu la ko may entraînement la moo neex lan la waaw non Sénégal moom métti tey ma li ma doon dund tey ba mu ñëwaatee fii fekk naa ay sama bu bëri boo nekkee jàmbaar ne nekk góor yàlla ñu la yaakaar bëri loolu rek charge de pression la hmm. waaw moo tax man a problème moo bëri xam nga ak contact dama bëgg contact nag léegi ma jeexal tàkk ndax dama bëgg contact sama xol dama bëgg contact waaw fekkee nag mbëri bëri soo gisee ñu bañ contact loolu moo tax booy contact da ngay jeex da ngay am doole mais lamb léegi soxlatul volume volume volume lamb soxla loolu loo volume volume loo jaay nit ñi da ngaa nga ne da ngaa punkal boo du kon jaratul léegi nga fi jël loo xam ne wala ngay ngan wala amul sens na nga am doole am am coffre bu doy loolu lañ soxla moo tax ñu ñëw rek tawuñu dañoo ñëw benn fan ñëw commencé samp bi lan la waaw affaire yi wax dëgg fa yàlla am na avancement bu baax ma amoon nekk lu ndaw xam nga tey seen xam na seen bëri na xam nga seen doole na amoon fee entraîneur fekk fekkaat fi ay entraîneur ñëwaat fekkaat bees yoo xam ne ay mbër lañu woon xam ne si biir làmb nekkaat si gars yi di entraîné affaire bi naa ma ñëw fekk école de moo fekk staff bi woo ñuy xàccandoo di dóorandoo. ñooy sa xol sedd. sama xol sedd fi tamit xam nga suñuy grand frère ñu baax lool ni ma leen fekke woon ba may dem ni ma leen bàyyi woon noonu la leen fekkaat kanam ouvert ubbeeku te loolu mooy àdduna quoi. retour de Pambaay de Pambaay. Mm-hmm. waaw ñu ngi bëgg jóge si waat Sénégal si jàmm waaw bu fi am ay victoire yu bëri ak waa école de moo faram ak booy yëpp. ñun saju bu ñu sañoon Guédiawaye si kaw baax mais ñun lu war def dañ koy def saa su ñu def mais dañuy ñaan école moo forom kon nii ni ñu nekk benn ñëpp a ñëwandoo xàccandoo dóorandoo gars yi ñëw nañ nag mu des mu nekk coow lamb ku si bañ coow rek bul bëre lamb dafa ànd ak coow man lu ne laa dégg sama àdduna nit bu lamb wax bu ñaaw mënu maa jaxase kenn lu ne dégg naa ko man si géejoo fii billaahi li ma dégg kenn dégg ko lu ne dégg naa ko su ma amee combat dom bi am na combat jëne bi am na combat day dox du nelaw guddi day ànd ak ay sàcc day ànd ak ay bandi si ay nanta lay fréquenté lu ne laa <clears throat> teewul ma bon mbër Sadio la war dégg loo dégg engagé ko mbër loo dégg engagé mais mbër yi ba lu yàq problème yi ko indi wax naa Sadio moo ko nekkul problème mbër yi ak mbër si benn supporter mbër bi a muus ubbi seen xel man la bu ñëwee ne la Pambaay nii xamal ne su waxee war nga xam li mu wax nii amul wala nga woo diw na ko lii ak lii mais mbëri léegi dañuy wax malal lii rek nga bàyyi malal te mbër moo ko li ma wax rek bu histoire rek supporté wala histoire bëri mbër rek mooy saye jeex na te loolu du la gis nañ fi lu nekk dégg nañ fi lu ne lu ñaaw lu rafet moo ko gën fuuf man li may wax saju lu ñaaw bëgguma dégg lu bon billaahi wallaahi bu ma sañoon ñëpp dañu am jàmm ñëpp ñëpp mënuñoo am jàmm ñëpp mënuñoo am salaam mais ñun ñu ngi ñaan yàlla saju adduna bi ñëpp am jàmm billaahi wallaahi wa taala hmm. mais est-ce que Pambaay bi ñu doon xaar bi ñu fekkoon bi ñu fi bàyyi woon Pambaay bu wow kong bi Pambaay bi bëri woon ak seen daal bëri bu rëy bi Pambaay bu wow kong ës bi est-ce que Pambaay boobu lañ am ba léegi waaw loolu lañ koy jël lañ kaa suul loolu lañ kaa nga xool suñ ko dañoo andi leen lu bees ñun lu ñu defoon rek fàtte nañ ko waaw lu ñu defoon fàtte nañ ko ñu xool suñ kanam waaw dañ doon bëri ñu naan jën ndara loolu dañ ko gasul ko billaahi wala dañ indi waat leneen lu bees tàq lañ indi waat incha allah bu neex yàlla suñu borom waaw jàpp sànni fële jàpp sa affaire Pape est-ce que dina yóbbu di bëre boobu ñun 83 kilos ñun bëree di bëri ay mbëru 120 kilos waxoon naa la keroog ba may bëri mobile 2 mhm. Bécaye dafa mer téemi kilos ne mhm. dem ba tey suñu xamee Bécaye Pambaay tey su lu bëri si lamb génn ah, si keneen voilà adduna góor yàlla dëgg heure bu ñu nee si ngoon tey si ngoon nga ne ma mënoo lii mhm. buñ xëyee suba fekk nga def ko ba dem sooy nekk leneen ah. man sama adduna noonu lay doxee sax voilà yéen a ñëpp jàmm sëkkee ñëpp jàmm amul leneen di soxor boo soxor da ngay tardé soxor baaxul man dama sëkkee ñëpp jàmm nii laay doxee sama àdduna yéen a ñëpp jàmm su ma la war a wax dëgg la wax dëgg ma fi mu jeex àdduna waaw ginnaaw bi nga bi nga demee nekk Europe yaa ngi doon toog di seetaan des fois nga seetaan bër gis sa bopp tey ci xale yi te bari na ci ay ay révélation ay yoo xam te ne ñu nekk ci làmb la des fois nga toog xam ne maag diw mi làmb ju neex la tey ci xale yi ba mu doon si teel koo ci xool di ci gis sa bopp waaw bëri na fii laa njëkkee gisee sama bopp école de ma fi ma nekk nii waaw fi ma jàngee bëre bàyyoon fi ay booy ñu nekk ay ndaanaan ma am lu ma def ñoom lu bëree bëri ma ñëwaat fekk loolu gën a pire bëri na boo yëpp muy seqay ma muy bada Lorenz safara booy fi nekk yëpp ñoom seqay booy yëpp damaa ñëw fekk ñu mag ma daan leen sax problème la booy nii pour ma daan leen te dama leen doon jàpp doon def nii booy changé nañ màgg nañu bu baax a baax mhm. tey nga gis si booy tey ba ma doon wax ñi nga cité pour bëgg a bëri ak ñoom fii Sénégal ndax am nga demoon nga ñëwaat nga tey ci booy yi nga cité ci làmb tey bari na booy yu toj de ci citeel ma yoo xam ne bëgg ma cité man fu ma toll ku ñoom ma bëri. am man cité wu kenn ku ñoom ma bëri li ma waxoon lay wax rek mhm. na fu ma leen rayee feneen si beneen loolu mooy àdduna mhm. waaw man dama ñëw ne pour instant yi dama jiwaat moo tax mhm. maa ngi amateur yi ak waa làmb même bu dul waa Guèye sax ñeneen ñëw Zize ko wax mu ne la combat coow lay bëri ndax xam ne combat coow si laa génn si lañ ma xam man. Pape Mbaye Kaw Gourdin d'accord. Kaw kuy Kaw Gourdin d'accord d'accord Kaw Gourdin. am na sama booy yu war a bëreel fii. non non. am na ay booy am na ay booy yu war a bëreel fii sama booy la tamit am na ñu war a bëreel si booy fii. Eh, mhm. Pape Mbaye Dame Sène. am na ñu war a bëreel fii tamit. ah, eh, eh, ah defal non jox ko woon sax ba léegi. Pape Mbaye Talfa. damaa bëgg nga jox ma loo xamante ne nii su may dem su may dem. avance ñàkk a jariñu ñëpp su ñu naan Pape Mbaye day dee revanche nag ma soxla toolu gu ma foo joxe revanche ma damay talal rek. caatu yoo Bambay. waaw sonn ma ay combat ay combat jàng ay combat saf yoo ma dem. caatu yoo mel ni borom dóor yi laa wax de. ana ma ko gën a soxla nag ñi ngay wax nii. Tyson 2 gën a soxla billahi wallahi. Tyson ma la yab beneen mbër Tyson 2 kese laa laaj. Ndayaan. Tyson 2 si boobu boobu laa soxla boobu. kër gu soxla mbër buy xeex. du ma xeex wuy ma damaa soxla mbër arbitre ne prime mbër buy sama kaw ma juula yow yóbbu la top 5. lu leer laa wax Tyson 2 laa moom laa gën a soxla waaw man combat yi laa génnee combat tey nga dee laa génnee combat tey nga dee laa génnaatee te boobu maa ngi bëri 83 kilos léegi maa ngi tolloo gars yi Tyson 2 der la de Tyson 2 laa soxla fii maa maa ko waroon ubbi arène nationale maa ko waroon ubbi maa fa waroon njëkk a bëre maa ngi Ramdaan ndeysaan yàlla ko yàlla xaaree àjjana waaw si laa waroon si laa waroon bëri mu yàqu nag waaw ñu voyage ñun ñaar waaw mm-hmm. waaw nga ne Tyson 2 nga bëgg a bëree. Tyson 2 dëgg dëgg. kër gu mag mel na dama toog xalaat man man Tyson 2 laa war a. la pour a daan wala. waaw ah, man man ma ñëwee ba léegi promoteur yëpp ñu ngi wutal adversaire man maa bokk si gën a naqari wutal adversaire ba mu fi nekkee ba léegi mbër li ma la wax yi nii gars yi ñu de bëgguñu ñu bu mën a bëre bëgguñu mbër bu soxla mën a xeex bëgguñu mbër bu am ay mbokk bëgguñu ko soo xoolee xoolee ma la wax baax mbër yi amul ay mbokk yi mën a bëre sax ñuy bëre ñu dañuy am combat waaw te ñun tey la war a ay fii moom nooyul moom fii kuy jël ak nga jël sax fii nooyul woo koog moo fi nekk. waaw waaw lamb la li ma la wax rek. li ma waxoon laa la wax rek. xel yu bari xel yu bari dañoo dañoo dem ci pambaay. li ma la wax rek fukki talfa. xel yu bari dañoo dem ci pambaay. waaw talfa champion la ñu koy nekkul champion daanaka la champion la. pare moo ko li ma waxoon laa wax billahi wala moo gën a li ma la fukki talfa billahi barki yonent bi mbaytin bu pare dama ne mbaytin bu pare bu taxaw laax biir parcelle laax nii ñu ko fay ne su amee ñu ko fay daan du bëri doone benn doone ñaar lii kay maa la ko bindal téere billaahi wallaahi mbaytin ba bay daan bàyyi pol bàyyi pol na ñëm jëli maa woo mbaytin jël njaga njaay oto ne ko mbaytin kaa ñëm jël bi bëri naa fa ñu bëri daaneen mbeex laa daan dem final mbaytin daan bàyyi pol te ba daan bàyyi pol si bàyyi pol si digg ndëlam la nekkoon laa la waxuma la caaxaan de mais lam moo garaaw Sénégal tamit fii metti xam nga Mbodj signé na famille la ñu ko yaakaar bëri judul fekk papam nekk ay milliardaire wala yaayam nekk milliardaire muy daw pression yi nekk sa bopp yow pression dafa garaw de déglu mu la wax Kalfa kañ kañ kañ lekk nañu xam ba mu bëri Mbodj bëri nañu doo ko xam de à part ñu waa lit simple après waa lit simple ñi bëri lit simple xam nañ ko ndax day wàcc nekk champion nekk ndar ñu nangul ko ñun duñu soxla non non man poids laa bëri mosuma bëri poids lase booy ñi ay mbër ñuy tàgg yu bëree bëri bëri si arène bi ñuy bëri fu ñu dee tunaa lase la ñu bëri ma damay final poids lourd billaahi wallaahi fu ñu dee si arène bi fépp nee naa la man ñaari mbër laa bërul fii si ñuy bëril simple franc laa bërul ak ak kii non non. Eh, non non. ma ko la ñi ñëpp laa bëral déglu mu laax. ku daan dama ne. laaj leen laax ñi ñëpp ku nekk ñi ay deux un ñi un ñi un ñi ñëpp laa bëral à part rëg laax à part franc ñëpp laa bëral ñi xam nañ ma ku nekk ñi deux laa daan ñi trois laa daan ñi ñu daan ñi waxantuma te yaa ngi fii di nga toog dara avant ma am combat amee combat di toog dégg jël na tournoi Dakar dégg jël na tournoi àll léegi du yàgg dara dama leen néewal doole par force xanaa déggool ma la ma doole sa yombul dama ku ma jàppante ñu xam ne ëpp ma doole mais dañu nit ñi dañoo laam-laam gën a a gën a oyof mais xam lim lemaa loolu ay dàq bëre maa leen dàq bëre fuuf maa leen gën a a oos léegi su ma ñëwee tool la ñoom doole li dañoo dem liggéey dama ni dañoo dund fi ay coono daf fi ay coono yu métti Sénégal billaay walaay géejoo bi ñu dëkk waaye Sénégal bi ñu dëkk gars yaakaar ñu am fu ñu teg ñun géejoo bi ñu dëkk dañoo am cër gars yi ñu seen biir xol barke Seydina Mohamed dañoo bëgg seen biir xol ñu am yaakaar fu ñu dem nit ñi ñu lañu def ba may dem keroog la appel laayaan bi ko ñoom Talfa laa jaar ko ñoom Gora Sock mënu maa egg fu ma jëm nit ñi nekk jox ma sa ak di faraw man ak yi nga seen kon ñun amuñu droit def erreur bañ demee nag tukki dañoo xam ne ñun dañoo nekkoon Sénégal gars yi yaakaar ñu fonk ñu Sadio moo wax école de moo fa warul niil waa Guédiawaye ñu def Guédiawaye ak mbëri ak supporters ñëpp waruñu école de moo fa niil dafa am lu mu def si làmb moo fa doon dafa mu niil billaahi wallaahi bu niilee moo xam du taali fu mu dëkk fu mu tëdd barke Seydina Mohamed waaw moroom ñun ñu ñëw chaque fu ñu nekk école de moo fa su fi benn doon nekk di contact billaahi ñu ñëw bokk ak moom barke Seydina Mohamed ay mbër woon nañ ay mbër mag bañ ne kaay loolu muy defal la ko billaahi wallaahi yàlla ma génn fii nii barki Seydina Mohamed ay mbër yu mag kaay suñu école loo bëgg xaalis loo bëgg ñu defal la ko pour nga ñëw ma leen école moo fam su bis moo fu ma yàlla tàgg yàlla ma su ma fu jigee dem benn école yàlla ma yàlla rey bu ñëpp doon bàyyi laax nii man dama bàyyi si école di moo faram ndeysaan dugg ndax bari na say yoo xam te ni tey ñu ngi ci école bi am combat ku ci mel ni guy gi mu jël combat boo xam te ni yaa ngi yàq contact bi de damay contact bi de waaw foofu la ñuy tëjee dañuy dugg ci guy gi am na combat moom ak Ada Fass Ada di xale nekk phénomène ci làmb dugg si guy gi jël ko ana lan nga koy dénk ci combat boobu ak lan moo ko a may pour daan Ada Fass ci làmb xam na li ko fu mu ko mën a yóbbu. amul lenn lu ñuy wax nii wala guy gi jàpp sànni fa dem dama ne waaye dama baax yow bëri nga xam nga li si bëre nekk champion moo yomb léegi da ngay am benn ménager bu baax

danga nekk promoteur doo xam ne loo xam la jaadu na wala liggéey na fi lu mu bëri liggéey na moom liggéey na sax lu mu bëri guy gi lañu wax sax moo liggéey lu mu liggéey ba bay bëri arafas mais Arafat daf na war def mais guy gi su liggéey li mu war a bëreel dama ne Ama Baldé ku mu bëreel suba guy gi guy guy gi Lo la gars doon di waroon nekk di coow mais yaa bi ko coow promoteur gi moo a wa ah. sama teel a doyal dafa man man waxuma la damay conseil si lamb dama ne carrément suba mën naa bëri war naa bëri si lamb mais lamb nii la lamb doxee ak lan teel a doyal ama ko si bu demee ba toll fa ñoom Balla Gaye toll ak ñoom Tyson ñi ay Modou Lo garaaw su la neexee mën ngaa bàyyi entraînement doyoon nga am nga li ngay am si làmb yaa ma dégg mais guy war na am fii ay kër notaire fu nekk war na fa am kër war na am ay société war na ko créer fii nii ndax guy gi toll na foofu si làmb mën na pouvoir bi si làmb guy gi moo ko sosee gis nga ay iriko gis nga lu lekk daw fi gars yi ko jëmbale lu nekk mais lamb ndaw boo tollee si li nga war def waxuma la guy lamb ndaw boo tollee sa ndigg nënd affaire yi di ñëw carrément war nga am li nga war a am da nga war a rey sa bopp muus ubbi ko am li ngay am boo paree nga xam ne mën nga si investir mën nga si dimbal ay nit mais tey guy gi dama gis man dafa teel a doyoon si lamb tey mais guy a am si làmb billahi walaay. gëm nga ne mën na daan aar face waaw dama ne dëgg leen wax. guy gi bu liggéey daa nekk morom aar face nga naan may nii. bu liggéeyee. Mhm. kuy jàppale yeneen mbër yi nekkul école de fa kon boo jàppaleel guy konoon xanaa kon iñaan la wala soxor wala iñaan ñañu la. Mhm. ñëw na ñëw na wala ñëwul. non ñëwul waaw non ñëwul. non ñëwul mais xam na dina ñëw man li ma koy wax saju laa wax rek mais bu fekkee ñëwul fu mu nekk na liggéey guy laa wax dama mu ñëw fii entraînement. Mhm. mu la wax. dama ne non woo ma ko ma ñëwee ba léegi maa damaa ñëw rek ñëw di entraînement ñu bëri seetaguma leen mais dama ne même bu ñëwul école de nekk mooy na liggéey mooy woo ay entraînement ka loolu kese moo sax ma ñor man mooy même bu ñëwul fii na ànd ak ay entraînement kat liggéey man li ma waxoon wax ama ma sàmm ama demba fu mu bu wootee pour entraînement wala bëgg a a a ñëw a liggéey pare arbitre ne pire tonto ak mu jàpp ko teg fële xam ne kii na moom si lamb bu neexoon nag champion la bu neexoon du wàcc bëri arafas bu neexoon mën naa taxaw fi mu taxaw di xaar ni damay xaar poids lourd te bu xaaroon moom guy bu fekkoon xaaroon day bëri day si kaw poids lourd mais ne am na lu nekk boobee a nekk lu gaaw warul sax nekk di jàppante moom la duñ la moo mu di bëri zarko si kaw mais guy gi bu defoon lu mu war a salaam du bëri Ada kon booy yëpp kon ah, waaw kon lu ñu bëri booy moo di ma la wax mais secret Pape la ndax da nga commencé ñibbi di entraînement ñu gis école de rek man maa école de Mor Fadam sant yàlla Mor Fadam man kese maa ko loo day ñëw fii ma jàpp ko ne coppe tàngu daan ko dëkk toog man kese maa ko doon fii waaw ma bëgg ma juddoo fi yaroo fi gars yi bëgg ma jox ñëpp cër gars yi nag kenn leen de sa waay doomu aadama kenn leen nit di perdre seen temps ñii yëpp dañuy liggéey am bàyyi seen liggéey ñu kay loolu nag dafa am yëg bu nekk seen ak mag ma sëkk ñëpp jàmm fu ma romb nit su ma la a jox li nga ma jox la dem sama am nañ fula boo xam ne mais am jaay mu yoral la fi barki Seydina Ahmed gars yi am la Sadio moo xam mbëri képp ku nekk mbër fi nga dëkk da nga war a jox la ñuy cër jox gaa yi yar foo romb lu waaye xew bul xaar kenn yëgal la demal teewal gaa yi soo mënee sa xaalis defal sa xaalis soo mënee perte temps perte temps loolu laay dee mbër yëpp nag fi nga njëkk a dëkk mooy wax ji yow fi nga dëkk boo sekkul nit ñi jàmm ba nit ñi ku nekk tee sa bopp fu naamee jox ñu gars yi cër liñ moom ni da ngay jox cër fi nga dëkk da nga fay joxe cër fekk si la di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Guédiawaye képp ku dëkk Guédiawaye ak kuy supporté Pambaay ak kuy supporté Écuderie moo faral Pambaay mu ngi lay siyaar li bi nga coach Écuderie moo faral mention waaw di bëggee sama booy nday booy fu ma dem ñu topp ma booy maa ñoom fu ma dem ñu topp ma maa ngi bëggee booy yëpp di bëggee waa euh, waa Xaayaan capital Matar Ndiaye di waa Barcelone Tarragona sama grand waa teewaan di wax na gaay Baay Faal na gaay waaj màggal daaru gi bu neexee yàlla na gaay waaj màggal daaru maa ngi bëggee ñëpp di bëggee waa bi capital ñëpp di ñaan ñëpp jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi jërë